Nous yow ici pour faire l'évaluation des résultats obtenus par notre candidat le président Macky Sall suite à la proclamation officielle hier par le juge Kandi, Le résultats qui valide l'élection au premier tour avec 58,27 des suffrages valablement exprimés de notre candidat, le président Macky Sall. Comme vous le savez, la commune de Tuao n'a pas été en reste parce que la commune a eu à verser plus de 5 points dans l'assiette du président Macky Sall parce que ici dans la commune, le président gagne avec un score de 55,59%. Ce qui est quand même considérable vu les efforts fournis par l'équipe du comité électoral, mais aussi par le maire de la ville potentiel du candidat à Makissal, ici à Tuaon, je vous nomme Diane Sibek À il y a eu un débat, un débat qui ne devrait même pas avoir lieu, parce que le comité légalement constitué est ici. Le comité normalement, administrativement constitué est ici. C'est ici, ici, au siège de la coalition Benoît Bokoyaka, que tous les PV ont été acheminés le 24 au soir. C'est ici que les mandataires, les représentants des bureaux de vote, les mandataires dans, les 27 centres de vote ont été désignés. C'est ici aussi où le pourcentage réel a été donné, ici que tout est parti donc. C'est la vérité et ici, le seul comité de la commune est ici, ici dirigé par M. le maire, dirigé par le coordinateur et toute l'équipe qui a travaillé ensemble pour qu'on puisse avoir cette belle victoire. Donc, pour résumer, en français, je veux dire que le comité qui est ici présent remercie toute la population de Tuawa. Nous ne disons pas que nous avons été les seuls, non. Mais le comité de Tuawa est ici. Nous remercions au passage tous ceux qui sont mobilisés pour participer à la victoire éclatante du président Macky Parce que Tuawa, la commune,

defe naa ne ni mu ko defee man su ma ko defoon sax du ma ko mënee noonu kon gàmm ñu ngi lay remercier ci loolu nga def Sidi Lamine responsable départemental bi yeesal bi mu jëlee kàddu defe naa li waroon wax yépp wax na ko ba yegg ci mbir yoo xamante ni xam naa euh, le premier vice président du conseil départemental ñoo mu complot euh, Alioune Fall mais dinaa ci ñëwaat Lamine Diouf notre coordinateur bi mu jëlee parole def na bilan bi kon remerciements yi def nañ ko def nañ bilan bi diagnostic bi rek xëy na lañuy ñëw tuuti su ko defee ñu mën a yeewi nit ñi ma commencé di sant le xalif général des Tijanes Serigne Babacar Sy Mansour njabootu maam Cheikh Seydi Hadji ak xalif généraux yi ci Sénégal yëpp sant samay waajur ak sama famille ci seen taxawaay ci sama wet ci mbir mi wante nag sargal maanaam félicité le président de la république Macky Sall ci li nga xamante nii réussir na ko te nekkul loo xamante nii lu yomboon la muy jàll dès le premier tour ak taux boo xamante ni téeméer boo jël weesu na ci juróom fukk ak juróom ñett kon président Macky Sall gàcce ngaalaama loolu nag bu amee suñ koy jàngat gannaaw bi ma remercier góor ñi remercier surtout jigéen ñi ndax jigéen ñi nee naa bi ma ñëwee sànq dafa mel ay jigéen salle bi ay jigéen rek ñoo fi nekk waaye loolu moo dalal sama xel ndax lépp lu ñu yëkkati ci Sénégal ñoom ñoo ci mën lépp lu ma yëkkati ñoom tamit ñoom ñoo ci jiitu ma remercier ji ndaw bi ci seen taxawaay ndax wax nañu téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti jeune lañ fi formé bés bu nekk ñoom ñu jiitu ñu ci quartier yi gannaaw bi ñu leen formé jox leen ay éléments yoo xam ne kuñ jàkkaar wax la ko nga xam ne Macky Sall nga war a wootee wante remercier seen parent yi nga xam ne ñoo leen bàyyi ndax su leen seen parent yi bàyyiwul woon du ñu nekk ak ñun. ma remercier la sécurité les si marrons ñoom laa leen tuddee lool léegi ndax seen taxawaay gannaaw bi nga xam ni remercier naa le comité électoral te ki ko jiitee di le coordonnateur Lamine Diouf Adja Fat Seen dafa am dëj tey soxna Yaya dafa am réunion Dakar waaye Adja Gàmmu mi représenté na leen fii bu baax a baax président Macky Sall su amee ndam loolu jàpp nañ ni lenn li moom li ñuy wax coefficient personnel am moom la ndax mooy ki nga xam ni ci Sénégal ak ci Tivaouane li mu fi jëf ci wàllu infrastructure waaye tamit li mu fi jëf sur le plan social tax na ba Sénégal yëpp xam ni ci seen njariñ mooy ñu bàyyiwaat ko fi waaye président Macky Sall it ku gis li mu def biir Tivaouane def ko Touba def ko Popenguine ñu xam ne sénégalais boo xam ne la vertu yi sénégalais yi am moom la am li sénégalais yi gëm tamit moom la moom la gëm kon loolu moo waral sénégalais yi gis ni kii ku mel ni ñoom la yàlla jiital ko seen kanam ba tax ñu ëpp si ñoom woteel ko wante it am na fu ñu dem ko bari suñu satisfaction mooy lan ah ñu de maire bi fi indi tali bi indi fi courant indi fi ndox financement yi defal jigéen yi nga xam ne rek ci veille élection yi am na lu ma téeméeri jigéen yoo xamante ni financé la leen ak ñaar fukki jeunes ci DER bi lu ma cinquante groupement ci li ma maîtriser ñi nga xam ne si sama loxo la jaare ak lu ma téeméer ak juróom fukk yoo xam ne ñi ngi xaar seen financement personnel loolu yëpp bu ñu ko boolee tax na ñu ni ay la yëwét ñun day du ñu def lu dul voté le président Macky Sall waaye ñun suñ comité li ñu njëkk a réussir mooy li ñu leen génne nag ñu voté ji ndax élection yële ñi nga amoon 9000 voix élection yi ñu am 15300 donc so analyser moy nit ñi génn nañ voté ji ba Tivaouane am taux bo xam toll na daanaka ci juróom ña téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi génn génn nañu voté ji waaye it suñu chef religieux yi ndaxte ñoom baaxoo wuñ di wax woteel leen diw waaye nag du ñu nëbb ñoom fu ñu féete loolu tax na ba ñu bari ci talibé yi soxla wuñu woon ñu leen wax woteel leen diw bien que ñoom nag seen démocratie egg na ba ci ñu woteel diw nangu nañ seen chauffeur woteel keneen loolu mooy Tivaouane mais defe naa ni joué nañ ci rôle bu mag a mag ñoom tamit ci mbir mi waaye nag dafa yaakaar ni li gën a tax suñu résultat yi mel ni mu mel yéen ñii la yéen dox guddi yéen a dox bëccëg nekk sur le terrain wax ak nit ñi te gis ngeen ni di nga dugg ci kër ñun leen bu ngeen ñëwuloon mu ñaaw de ndax fukk ak kàtt ak ñett yi ci kër gi su ngeen ñëwul woon du du du ngeen ko moom kon li ma leen di reproché mooy dee leen dee leen communiqué kon absence de communication boobu taxoon na xëy na euh, suñu demul woon ci ñoom non seulement du ñu génn voté ci wala bu ñu génnee keneen la ñuy la ñuy voteel kon may wax ni rek résultat yi du man du Lamine yéen ñii la. comité électoral bii ñu mettre en place nga xam ni man maay plénipotentiaire bi nekkoon interlocuteur unique bu préfet ñun ñoo fal ñaar fukk ak juróomi mandataires yi ñoo leen jox seen carte juróom ñetti fukki représentant bureau de vote ñun ñoo leen désigné juróom ñetti fukki suppléants yi ñoo leen désigné c'est vrai si di wax ko ko sànq am na ay koppar yoo xam ni ñooñu si lañ leen waroon a fay maanaam parti bi bu lay financé day jël une partie da koy denc ba ci fin bi pour nga financer si les opérations électorales fay ci xale yi ñu paas dem mandataires yi supervisé nga jox leen seen ndàmpaay taw ci yaay ah xëy na nag am nañu yaakaaroon ne loolu ñun bu ñu ko joxul te kat bañ koy joxe ka ko doon joxe muy farma moom man la woo ni ma diw diw nii taxaw ba soo ñëwul du ma joxe xaalis bi ma boole di ko jox leen ko xam naa boo leen ko joxee rek dinaa si jot mais damaa woo nañ ma ni ma bu trésorier bi ñëwee ñu jox la ko woowaat mi dama ñëw finalement xaalis boobu doo si jot ma ni leen je prends acte waaye lépp lu ci waroon dinaa ko def kon mel na ni tey su ma ko waxul woon sax loolu du ngeen ko ndax ndaw ñi am na ñu commencé woon di wax si seen biir du ñëpp nag ni ñun de ku ñu joxul suñu transport duñu siège bi mais man de jàng si nga xalaatuma benn bureau de vote waxuma la benn titulaire de bu amul titulaire ba ca biir suppléant wa toog ku ne ñu jëndal la crédit problème boo am nga wax ñu ko moo tax loolu ça n'a pas été un pour nous dañ ko constaté rek jël at financé ko alhamdulilah rabil alamin lépp jaar na yoon kon yéen ñii ndam loolu gannaaw bi ñu gërëmee ñi nga xam ne ñëpp ku ne contribué na ci waaye nag seen ndam la ku fi jëf rek yéen la ci jàppale kon si waxtaan ak ñoom lépp loo xamante ni lu ñu war a def pour que yëf yi gën a mën a jaar yoon incha allahu taala dinañ ko def. kon monsieur le coordinateur mesdames et messieurs lii rek moo doon kàddu yi di wax ni nag am na sama mag si ndooy lu ma wax sànq nit nag di nga toll si jamono da ngay moom lenn ci yow nit ñi moom lenn ci yow. li ngeen moom si man dégg naa seen bëgg-bëgg Tiwaawan nag li tubaab naan dafa am ay règle non écrite ñi ñu ci war a waxtaanal nañ ci waxtaan ak ñoom bu jotee. dinañ jàkkaarloowaat ak askan bi yépp wax leen fan lañ ci toll wante wante wante dama bëgg ngeen xam ni Tiwaawan gii kenn dootu ko doxal bàyyi leen dama bëgg ngeen takku taxaw xam ni les prochains défis vous serez au cœur insha allahu taala nii ko si di ñaane ci nii wala ci nee on y sera et ce groupe là nga xam ni moy Benno boku parti socialiste AFP LD YSL, LCP les mouvements de soutien LAMS Habibi la révélation de la campagne Serigne Sidi Ahmed Si, mouvement Habibi le mouvement debout avec Mori Sène suñu waajur suñu papa suñu xarit papa Amadou Diallo nga xamni ni bu nek mi ngi bi groupe bi kenn dem bayiko URD ab Omar Dia bu agi seen teewaay si groupe bi permettre na xel yi gën a daal kon nag ah noppaloo waroon a am de xanaa fi ak président bi prêter waaye bu paree li ñu diggee maa ko diggee si seen tur wuraat dellu fépp dem ci quartier yépp remercier nit ñi mais surtout sax remerciement rek ce sera surtout pour toog déglu seeni soxla seen i mbébét ak lan lañu soxla naka lañ ko bëggee ñu defal leen ko kon xam leen ni noppalu noppalu amatul incha ñun ñoo def sacerdoce taxaw ci soxlay askan bi du gën ma bàyyi ma noppalu waaye man it dootuma leen bàyyi ma noppalu di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf waaw may remercier Gustave ci ñaari question yi nee ndax xaalis boobu ñu téye da nga xam ni opération électorale yi lañ ci waroon a financé ndax ñun dañuy porter plainte euh, déedéet ñun président Macky Sall ndamam lii jaraloon nañu bu dee cent millions buñ ko amee ñu def ko ci muy benn ñaareel bi mooy ki nga xam ni moo ko jëli woon ñu wooma ci kanamam ni ma ndax ñu jox ko ko ma ni leen jox leen ko ko su doon man du ma doxale noonu waaye ñetti million su ma ko ñaanoon moom sama mag la fekk ma am ko ma may ko ko kon ni ma leen ko waxee constaté naa ni téye nañ ko lañ ñu warloo woon ak membre du bureau de vote yi génne nañ ko jox nañ leen ko loolu mu ngi suñu gannaaw fàtte nañu ko mais il fallait rek ñu informer nit ñi ci tolluwaay mbir moomu naka la demee ndaxte bu information officielle amul rumeur day am te am na ndaw yu commencé doon def ba ñu yëgee ni ñu ngi koy jëli te joxuñu ko te suñu leen fayul ñoom ñu siégé ñu ni leen nag ay la yéwén ñu jot kook ñu bañ ko jot lépp lu ñu warloo ak yéen dinañ ko def te noonu lañ ko defee alhamdulilahi rabil alamin mais loolu duñ ci porter plainte suñu posé wul question sax dootuñu ci waxati ndax fàtte nañ ko ndamu Macky Sall bi mu ñëwee dañoo fàtte coono bi coono yaram bi dañoo fàtte coono yi nga xamante def nañ ko sur le plan financier Lamine wax na ko léegi li mu tudd mooy li officiel liñ joxoon trésorier bi bokkul ak rien du tout nak yi ñu ray ak dépenses yi ñu joxoon carburant yi ñu def ci caravane yeeg lépp lépp duñ ko xaymaa duñu wax ñaata la mais nee naa leen bu laajoon milliard pour président Macky Sall am ndax pare woon nañ ko def ko beneen bi nee nga kenn bi mu jëlee parole ndax teelul mu lay wax pour nga nekkaat candidat ci ci mairie bi defe naa ni nit ku ne sa yéene moom nga am xam naa tey nag comme toujours bi ma ko posé en privé réponse bi may joxe du leer moo tax tey ñu posé ma ko en public mais li am ba am mooy dafa am ay règles non écrites doo xëy rek ni candidat bi dafa am ay jaar-jaar jaar-jaar yooyu buñ ca jaaree ba mu jot dinañ ci wax ndax candidat lañuy doon wala duñ ko doon wante nee naa groupe bi nag ñu xam ni tous les défis yi nga xam ne ñu ngi suñu kanam te maire bi si lay bokk leneen ak leneen ci lay bokk nañu xam ne dinañ ci jouer un rôle principal donc dootuñu noppalu incha allahu taala mais effectivement suñ ñu posé question jëm ci wàll boobu il faut ñu intervenir ci mais Tivaouane ak doxalinam ak ay règle dinañ ko respecté ba mu mat sëkk bu jotaatee xam naa dinañ woowaat presse bi ak le grand groupe ñu wax lan moo ci aju oui euh, merci pour la question Gustave s'agissant des de l'argent qui a été destiné aux opérations électorales et qui a été confisqué, le mot n'est pas de trop car c'est le cas, je voudrais juste rappeler qu'au moment de la remise des fonds, j'ai été appelé par les responsables du parti, notamment M. Fardongom. et c'est moi-même qui lui ai dit au téléphone que l'argent pourrait être remis entre les mains des gens qui étaient présents. D'ailleurs, une fois à Tiawan, euh, ils m'avaient dit qu'ils attendaient juste l'arrivée du trésorier pour que l'argent nous soit remis. Ce n'est qu'après que j'ai reçu un message SMS me disant que l'argent a été retenu pour le groupe. Et pour rappel, y a un comité électoral départemental que nous avions mis en place, mais que nous avons rien carrément dès que le président nous a dit vous auriez pu. J'ai constaté que cet argent ne nous a pas été remis et je m'en suis arrêté là. Et n'eût été le fait que la question a été soulevée ici, je n'en parlerai pas. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si j'avais un milliard par devant moi, j'étais prêt à l'investir pour la réélection du président Macky Sall. Ça, c'est un. La deuxième chose, la personne qui devait me remettre la somme est un grand frère qui, s'il avait des problèmes à hauteur de ce montant, et que ce montant était disponible à mon niveau, je serais prêt à le lui donner gracieusement. Et heureusement, on a pu prendre en charge aussi bien la restauration que le perdium des représentants des bureaux de vote et des mandataires. Et c'était ça l'essentiel. Non, on ne portera jamais plainte. On ne fera même pas de recours gracieux devant le parti. Cette histoire est derrière nous. Depuis qu'on a annoncé la victoire du président Macky Sall, on a tout oublié et on est en train véritablement de jubiler. S'agissant de la question de notre candidature prochaine à la municipalité, vous avez dit n'est-il pas prématuré d'en parler Je sais que la personne qui en a parlé est une personne qui me veut du bien, qui souhaite que j'ai tout ce qui est bien dans ce monde, et il a parlé au nom d'un groupe. Ma réponse a été très claire. Nous sommes dans la cité religieuse de Tuawan, où il y a des règles non écrites et avant de déclarer sa candidature, il y a des gages et des garanties à prendre. Nous allons passer par toute cette procédure et le moment venu, nous aviserons. Mais j'ai dit également au groupe ici présent de se tenir prêt pour tous les défis futurs dans cette commune et dans le département. Et le moment venu, nous jouerons certainement les grands rôles, quelle que soit la décision qui, sera prise. Je vous remercie de votre aimable attention.